رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا السلام ورحمة الله أنا أبو سانتا يال جولي شيون انتو عليه الصلاة والسلام يطلقوا شي مولانا شيخ إبراهيم سن سري سن واجر نيجي نيو وا تلفزيون بوبو ak yow omar yow ñu ñew di sante yalla bu baax tamit ci ay dogalam di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jaale suñ mag Seyda Fatimatu Zahra mooy taawi moo Mawlana Cheikh Ibrahim ba pare yàlla matal ko taaw googu mu def mu jëfee ko uuf ay rakkam uuf ay njabootam lépp lu mu mës a am walla mu am ko ci ak ak njabootam mook ay rakkam ñoo ko bokk référence la boo xam ne royuwaay la képp koo xam ne ci ñun ñu ngi la doon dugal sa néeg sëy buñ la taajee rek wax nañ la na la xoolal ci Fatoumata Zahra ni mu nekk amut kuñ ko waxut fii ba ci doom yi ba ci sët yi ñëpp wax nañ ko ndax oyof gum oyofoon ak liggéey bu rafet boo xam ne mi ngi ko liggéeyoon ci kër Seydi Ali Cissé ak bëgg mbokk gum mbokk ak uuf ay rakkam bëgg alxuraan jukki alxuraanam bi bi muy dëgër saa yoo ko fekkee mi ngi ko téye bi mu demee ba mën a tëttee jukki bi sax dañ koy tegal alxuraan ji mu di ko déglu ndax bëgg gum bëgg alxuraan nekk doomi Mawlana Cheikh Ibrahima te wanewu ko benn yoon ndax réyut benn yoon dafa oyof lu nekk rek ci lu baax ci moom lañ ko royee dañ koo gisoon mu oyof nekk ci dëkk bi képp koo xam ne sa doom judd na sax nga taamu pour mu wat ko ñu gis ko muy dugg ci ay kër yoo xam ne di fa wati ay doom di fa muuri ay seet ba loolu moo tax sax ñun ñu roy roy loolu ndax bi mu demee ba mënatu koo def sax man mii la la tegoon ne man naa koy defal lépp li nga xam daf ko daan def ci famille bi te mënatu ko woon ci ci façon yooyu man mii la ko santoon ne naa koy defal may def liggéeyal boobu. muy nit ku baax muy nit ku màndu muy nit ku tabe nit ku am njëriñ loolu rek lañ xam ci moom mbaax googu rek lañ xam ci moom di dem Cheikh Ibrahim te wanewu ko benn yoon. di ko ñaanal yàlla yàlla na ko baayam teeru teral ko yàlla nekk gan yonent bi sallallahu alayhi wa te xam nañ ne sax loolu am na ñaan dafa nekk sunna rek di ñaan yàlla wattu njabootam yàggal leen fi te liggéey boobu mu liggéey yëpp yàlla na ko yàlla def ci ay doomam ak ay sëtam waaw ñu ngi gërëm ñu ngi sant moom ci këram kër gu mag la nekkoon waaye bàyyiwuloon nag surge yi wala taalibe liggéey bi ci waañ wi dafa daan nekk ñoom dem marché ndugali boppam ñëw toggal borom këram loolu lan ngeen di jàngal ñi nga xam ne ñooy génération bu bees bi nga xam waaw loolu la daan def moom daf daan duggee ñëw taal togg séddale loolu loolu la daan def ci kër ga moom dem na ba Seydou Aliou génn àddina sax mu continuer di di séddale di séddale ba ni ko mën la ko xale yi soo ko jël waaye moom mësta bàyyee kenn lenn ci loo xam ne mën na ko mosu koo bàyyi waaw liggéey kër yi war soxna ci këram yëpp moom daf ko daan defal boppam loolu moom moom la ko njëkk ñëpp taggee ba loolu moo tax moom laa la wax ci wax ji ne la képp kuñ taajaan ngay dem sa néeg sax danañ la wax na la royal ci Fatimatu Zahra ndax jikko yi rafet yooyu dëgg yàlla mhm. mhm. di gërëm rek di sant di jaale suñ xalifa bi di ko nuyu di ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér te yàggal ko ci suñ kanam diko jale diko jale ay rakam yep di jale sayda Roqi di jale ay rakam yep mom tamit jigen wa kër sayda Aliou Cissé yep di jale mborem soppe Cheikh ibrahim fu meuna nek te ñaan yàlla li mu gecc fi yaara bi yàlla na fi gecc yàlla bayil ñu fi ñu ci dess ba ci kanam ak kanam ñu ngi gërëm di sant assalam raditu billahi rabba wa bil islami diin